ndax kon day tiim wala day àggale njàpp mi rek xilaafu am nañ ci wuute wax ji gën a dëgër nag mooy day tiim am nee ñu dab waxtoo gën dabuk laab laab bi charte la ci wéru julli waaye in qadara wata takkara na ko fàtt bu mu ko fàtte su na ko mën waxtu wi nag moom gannaaw moom xam nga ne am na lu des ci waxtu wi te mën na koo dabaatal ci tiim du dem di jàppi ci lennati wax yi xilaafun la wax de wajaasa dagan na janaasatun ak tàdd maanaam jullee néew wa sunnatun ak sunna wa mas mu safin ak laal kaamil wa qiraatun ak jàng alxuraan wa tawaafun ak wër kaaba ga ñu ko waxee woon war ak ataaw ak ñaari rakka ñi mu ciy teg xul yaa ayyuhal kaafiruun ak lixlaas bu noppee yépp dana dagal bi tayammumi fardin ci tiimu farata aw naflin wala naafila in taaxarat ndem yooyu ñuy wax mujj na waxtu wi dafa jot mu tiim yéenee def ci yooyu yépp mu julli ba noppi nag jokk ci yooyu kooku moom defe naa ne ndax bari xam nga risaala jaamoon ngeen wa batala yàqoot na asaani aji ñaareel ja nag ahta axarat waaye laa fardun bi caa génni faratale aaxaru jeneen ñaari farata kenn mënu ko boole ci benn tiim donte sës dangaa fàtte woon julli tisbaar ba tàkkusaan jot nga war a julli ñaar yëpp itam sa farata di tiim ndax mënuloo laal ndox wala amuloo ko nga tiim julli tisbaar da ngay tiimaat julli tàkkusaan wa in qusida
ba nax leen moo dafa wax loolu dugal na ko ci biir waaw bu néew nag rek dugg na gannaaw bi mu mu dellusiwaat ne la la sunnati na waaw kañ maanaam foofu est-ce que jarul na kii misaal leeral kay nga dëgg ndax xam nga sunna dama yaakaar ne moom léeg-léeg Kañ.
fàtte nax la ko gën a yaatu waaw ndax waaw ndax naafila dina ci am sunna am ci mën dugg mustahab amit naafila la boo xam ne moom tatawoo rek la amul yoon wu ko jiit woon muy jaar tuddee ko sunna wala tuddee ko mustahab wala muy dugg nga seet seet rek defal ko sa bopp léegi waaw léegi wala raxiba lu mel ne fajar yooyu yëpp dugg na ci ana fi fi mu mujj wax wa- fi ne laa sunna si la sunna bi nga ne ci li ñu rëdd kii bi bindu ñaar ñaareel bu ñu ñaareel waaw waaw Mu ne waaye laa sunnati.
waaw ana wala yooyu la ah wala sunnati wax kañ xam nga bu fekkente ne ki nga xam ne dafay tiim dafa amee feebar mu nga xam ne farataam mooy tiim mu tiimal farata mën a tiimal itam naafile waaye mën a mën a tiim mën a bu tiim bu jullee farata ji mën cee teg naafile ji mën cee teg na waaye du tiim rek ngir sunna tiim kese ngir sunna te muy xaadal di saxeex daf koy bàyyi moom la mu ne misaaloon naa ko masalan tey léegi dangaa toog ba sunna jot loo xam ne dañ ko sunnaan mu di iid wala lu mel ne iid tahiyatul masjid am na am na tuuti wuute waaye am nañu ko jàppe sunna ñu ne sunna la léegi mu wax mu jot nga war koo def nga daal di tiim rek def ko nga tiim rek def ko fekkul nga tiimal farata ndax ajuwul du luñ la imposé loo xam ne sañuloo koo bañ kon li nga xam ne sañuloo koo bañ moom boo boo ko tiimalee mën nga cee teg leneen lu mu doon waaye li nga xam ne sañ nga koo bañ moom nga toog rek di aji wér euh, di aji teey itam daal di dem tiimal ko rek ngir def ko moom la ñu mayewul dégguloo ba tey de dégg naa ko xam nga li ma defoo jaaxal maanaam mooy laa su ma si nag laa ab mu kii rek ñooy koo koo xam ne kii da ci doon sàkku yàlla maanaam waaw lekk ah lekk ko waaw kañ maanaam mooy xaw a mën naa defee leneen Hmm.
mën naa defee leneen dañoo bañ a woyofal yolamal ko bu mu ëpp lañu bañ ndax bu fekkente ne am nga gëm yàlla ak jaamu yàlla gopp yaa ngi def sunna ak naafil ak yooyu war na la jaral dem mu ci dox waaw war na la jaral Dégg nga.
waaye dañ ko bëgg a woyofal rek loolu lañ ci bañ dégg naa
dégg nga mu ne batala yàqoot na sani aji ñaareel ja wala wala mustarakatan doonte dañoo bokkaale waxtu yi comme tisbaar ak takkusaan ñoo bokk waxtu ñooy faatandoo maanaam seen daruur yi mooy jeexandoo mooy jant bu xonq bi waaye euh, tisbaar mu xaaram mu ngi tàmbali boo xamee ne rek jant bi toll na ci digg asamaan lu mu ci teg rek jéng ko nga xam ne léegi bu ñu ko doon séddale lii mu dox moo lay ëppal moo lay gënal li mu def lu mu tuut tuut foofu la tàmbale bu sa takk ndoor tolloog sa taxawaay ci guddaay muxtaaru tisbaar foofu la jeexe daroor yoom dugg takkusaan moom itam dugg ba nga xam ne sa takk ndoor bi buñ ko nattoon dana mat sa ñaari taxawaay muxtaaru takkusaan jeex léegi ñoom ñaan yëpp seen daroor yi dine ba ci xonq ba ci sow ñoom jant zone jant la kooku mustarakaat mu si mustarakaat ñoom ñaar mustarakataan ci la naka noonu timis ak gee waaw waaw mu ngi ci daroor yi tisbaar ak daroor yi takkusaan waaw dégg nga waaye laa bi tayam min di ci ay génn ci benn tiim rek li mustahab bin nga defe ne man laa fardu ah wa in qusida bu batala saani wala mustarakatan laa bi tayam mumin mu ni laa déet di wér wala déet di dagan laa dégg nga déet di dagan julli janaasa ba ci lim ci lim ci sart lépp lim ci tegaat lim ci ataf lépp ci naafil la boo xam ne jëf ju ñu sopp rek la du woon farata jëfi farata moom boo ko tiimalee mën nga cee teg yooyu yëpp waaye bu fekkee ne dangaa tiimal loo xam ne du farata doo ca teg yooyu yëpp doo ca teg lenn ci yooyu julleen yow lan la fardu kifaaya bu nekkee fardu kifaaya bu amee ñi ci taxaw ñi ci des lan lay doon ci ñoom léegi da da da wàcc rek.
wàcc na leen lépp buñ koy def lu lu muy doon léegi daal rek moom suñu réseau bi. maanaam gën daal
gën a dégg nga la laa du dagan ci moom mu jëf lenn ci yii nu limoon bi tayam mumin ci tiim boo xam daf koo tiim li mustahab bin ngir lu ñu sopp ni ki tey dafa bëgg a nuyu ci buur bi wala sëriñ bi sopp nañu nga jàpp jàpp jàpp loolu nag mun loo ci li mu taxab rek daganul nga jullee ca néew wala nga laal ci kaamil alxuraan wala nga wër wala yi ñu wax ñëpp ba mu jeex wala nga jullee ca janaasa yooyu doo ko mën wala sima warat na muwaalaatu hu ak méngaleem maanaam jëfam bi nga tiimee rek nga daal di ciy teg li nga li tax ngay tiim su fekkente ne yéex na day daal di yàqu ndax tiim kenn du ko denc mu walaat fu mu amaaf ila lahu dégg nga wa war na ba tey xabulu hibbati maa in nangu mayu ndox waaye laa sama nit du ci agee njëkk de bu fekkee ne amuloo loo jàpp nit ñi may la ndox am waaye nga jàpp ci waaye bu la nee am na may la nga jëndi dox waru la bu la neexee bañ mu mel ne ku lay may alal ne la nga aji lépp loo xam ne lazim la ci yow nga xam ne dañ na kat aj farata la te dégg nga dangaa war a nangu alal ji aji ndax xamuloo kañ la dee di ñëw mu wàcc la déedéet warul bu la neexee nga bañ bu la neexee nga nangu mu mel ne njëgu ndox mi njëgu ndox mi bu fekkee ndox mi da la may alhamdulilah bu dee nag njëg mi moom du la war bu la neexee nag nga nangu ko mu mel ne ki lay may xaalis pour nga aji ki lay may biyee màkk dangay nangu yi gënul ah nangu gi gënul dafa am nag lu ñu ciy wattandiku moo di sàppaanu ak moom mu gis ne moo la tax aji màkk yooyu itam aji gi mu la tax aji màkk nga xam ne diwa tax mu gêné la te yooyu kon duñ mën a wax ne mutlaqan rek nangu gee gën mën naa am kaa yoo xam ne nangu mooy gën bu yooyu bu fekkee ne wóoru nañ ko na la dara du ci am ci yooyu mën na koo nangu na koo nangu ba tey dafa wax rek ne war waru ko nekkul laasim waaye mën na ko ba tey dara nekku ci même bu ci wóoloo yooyu pour sañ koo bañ na ba tey sañ na koo bañ ndax wóoru mën na ko wóoru moom te wóoru te mën ci am lé- léegi ci tiim bi soo demee ci dëkk boo xam ne bii am amoo fa ndox kenn mayu la ko ndax it dem di ko ñaan day daal di nekk farata ci yow
waaw dana am ngi ci kanam talaban yëf xilaaye soq loolu sàkk bi nga ko war a sàkku ci la lay ndax doo toog rek ne aw ma ndox fii damay daal di tiim faw war nga wër boobu la wër waaw dégg nga aw xarduhu wala lebam ah ma lebal la njëgu ndox waaw xam nga dafa ne woon wax war na xabul hibati maay xartu ko ñu xartu ko lebal la ko dagal na ndax da nga koy fay mayu la ko wax bu ak jàppam moom ndox bi sama ci njëkk nga jënd ko nga am sa xaalis yow jënd ndox mi jàppee waaye nag na fekk ne njëg gi ictiida njëg boo xam ne baaxoof na ko ci lu toll nii ci ndox ci jënd lu toll nii ci ndox waaye bu fekkee ne waa ji pot ndox wala lu tolloog loo war a jàpp rek mu bëgg la koo jaayee léegi cinq mille francs wala dix mille wala quinze mille du la war du la war bu na fekk itam njëg gi ñu koy jëndee lam yax tëj aaji woowuñu aaji woowul la ko jëm ca loola na fekk du ca gi ni lii kat yow yaa ngi nii da ngay dem Dakar te moom nga am am ci loolu paas bu ko aaji woo te dem bi demu dem bu dagan la dagan la wa in bi zimmatihi nga ne ko waaw xanaa jënd ndox mi di ko jàppee xanaa da ngay teewal mu ne bay bal wa in bi zimmatihi donte dafay nekk ci baatam itam du maa jaay ndox danaa la ko fay mu ma la ko fay léegi xam nga jaay mu jëm dig wala moom dañuy wax rek lebal te leb ak jaay mu jëm dig bokkewul jaay mu jëm dig moom jaay la tudd xam nga jaay am na ay charte lebalit dafa am ay charte jaay mënuñu caa bañ rib ndax faw rëbnu li ñuy wax rëbnu mooy nax naxe wa aslul rëbni maanaam mazunun fii li ann al baya la ribxa laa yumkinu illa bi rëbnin ma huwa mazunun fii asla faw li tax ñuy jaay am ci dara te kon faw nga nax nga ki ngay jaay waaye jaay jënd dafa dafa dafa dagan wa ahalla laahu al baya wa harrama riba kon jaay moom bu ñu ko waxee kenn du ne tere nañu jaay gubbi ji njëriñ tandis que nag lépp moom araamal nañu lépp gubbi ji njëriñ limaam abu xanifa radiallahu anhu def daan def bu ko nit amee lee bor bu bu koy fayu ji du toog sax ci kërum taaxu waa jooju wala kër gërëm ndax bañ a jëriñu ci lépp bu ñu ko lebal day taxaw ci naaj wala mu toog
bu xeeti kii de maanaam tey façon jëflante bi ñu jëflante xam nga tàqal ci ko maanaam li ko tàqal ci wala fu mu xooje ko waaw yow xam xeetu njaay la bi maanaam léegi dañu kii ci boppam ñëw na waxante ngeen ci am marchandise wala benn article boo xam ne fii nangam lay yàlla moom nag amul léegi lu la fay waaye léegi tey mu ne daa la fay waxtu nangam façon jëfandi bii nga xam ne waaw lépp la ñu koy tuddee ñoo xam te dafa am xeetu jaay la waaw xeetu jaay jaay la jaay la ndax rob na ko noonu parce que léegi prix bu ma yéex ni la cay xew na maanaam li ci topp nga xam ne ñoo xam ne ñu tey jii gannaaw day doon loo xam ne nii nangami kii weer wala nangami ay doom na ko fay kon nag prix bi lii la waroon doon waaye gannaaw léegi da lëli ci am may dama ko yokk boobu doon dinaan daal leer fu am na lu ñu fi tey da ngeen ko ci sax bu ñu demee ci saani bi lii dama koy jaay bu fekkente ne teew la nit ki daf may fay lu teew sept mille laa koy jaay bu fekkente ne daf may fay weer wu dee dix mille laa koy jaay nga ñëw ne kon jël naa ko xam nga yéen aqidul bay'u bima yadullu ala rida wa in lam yaftaraq al mutabayi'ani da ngeen ko gis fii njaay bi moom lépp lu tekkale ne ki koy jënd nangu na te ki koy jaay dafa ñëw ngir jaay ki koy jënd nangu na rek njaay mi dal nay fasu bu boobaa kenn sañatu la génn kenn sañatu la xàcc xàcc moom dagan lu mu neex ki ngay kileel mu mu dimbali la defal la ko xàqam la léegi nag bu fekkente ne ah dama ne la kii dama koy jaay bu dee dañ may fay léegi nangam la bu dee day jëm dig nangam la ba nga nee kon jël naa ko fasu na te xamaguñu ci lu mu fasu xamaguñu yow da nga koy fay léegi wala da nga koy fay bee sa takkotan ba noppi te jaay lu ñu lëntale moo xam li ñu lënt gi ci bërëb ba la wala masmoon bi maanaam li ñuy njëgal li ñuy jaay la lënt bi nekk wala waxtu fay wala wala ca fayin wala lu ci lënt rek mu xaram loolu lañ ci tere.
waaw kon daal ba ñu fay jógee war nañu fixé ne léegi.
loo koy waaw léegi daal bu dee kii léegi sept mille nga koy jaayee mu ne waaw mu ne kon jël naa ko. loolu moom la waaye bi mu nasab léegi xam naa sax xaw na nekk xaar janeen moo ko ndax leneen la waaye léegi bu fekkente ne léegi moom daf ne léegi cinq mille laa ko jaay bu fekkee ne léegi tey moom i laa jël mu mañaan la léegi tey maa ko jaay sept mille kooku itam parce que ndax léeg-léeg nga ji ci ay fataawa yu xaw a doy waar ci rajo bi waaw dégg nga danañ ci jaxase sax laa yoo xam ne ay jaxase la lënkale bi ma waxoon rek nga nangu te leeralagul moom lañ ci tere waaye bu fekkente ne yow ndax buñ dee wax jaay mujj moom jig xam nga yow moom sa alal te mën a too si jot te jotagoo xaalis bañ koy fayee xam nga xam nga am na ci loolu lot tuuti coono loolu moo war a yokk prix bi kon li nga xam ne léegi mën naa koo jaay ci tuwaan bi mën naa la ko lebal ci lu ëpp loolu fuuf li ñuy wattandiku ma ñëwee di jëndaat di ko jëndaat cee wax ko ay suwar la ñett ci xalaat ni ñu ko waxoon ci woon ko jënd ko ci risaal bu fekkente ne nag léegi dama ne kii xayma xam nga xayma ba tey ak prix du benn xayma ak prix ba tey wute nañu am na foo xam ne prix la ñu seet am na foo xam ne xayma la ñu seet waaye lii nga xam ne daal moom maa ngi koy jaayee ci teew nii la bu ma ko dee ku koy leb maanaam ku koy jënd bu jëmum bi nangam la
ci waaw kenn ci njëg gi dal war naa war nañ ko leer war na leer bañ ràññal ko bañ xam ne lii la dégg nga mu ne
invisible wa invisibilité doon dafa nekk ci baata bi boo ko fay léegi itam waaye daf ko jënd rek mayu ko ko dégg nga sarax ko woowaar na ba tey talabu ak sàkkoom moom ndox ñeel aji julli ji te war a jàpp li kulli salaati ñeel képp julli bu fekkee ne seetoon watoon nga ndox ba amuloo ko ci tisbaar ba nga jàpp ba nga tiim julli tisbaar bu takkusaan jotee du tee nga war a seetu na nga seete woon waaye doone seetoon naa ko ci tisbaar aw ma ndox doy na déedéet doo ko def li kulli salaatin la wa in tawahamahu doonte def def le woon na koy ja def def le na ne daal du ma am ndox wala du tee war na jóg seet ko rek waaye laa taxaqaqa du caagin ay laa in taxaqaqa du caagin lim dëgg na adamu in taxaqaqa lim dëgg na adamu fu fekkee ne wóor na ko ne nag moom moom du am xamu ko moom waratu ko mu di ko sàkkuwaat talaban daf koy sàkku nag dana sàkku wuti ndox talaban waaw kañ talaban ak sàkku boo xam ne laay suqu du diis bii ci moom nga ne ko ta sàkku ndox boo xam ne du du doon du metti ci yow nan lay dee luy luy limitam daal ci luñ ko xam ne mu ne kar fatin naka seetee xalilat mu sudee aji néew aw xawlahu min kasiratin léegi mbooloo mi nga àndal kenn xamu ci fenn ndox fu mën a amee ndox waaye ndox ba mooy mbooloo mo mi nga àndal ne la ah te fii de fii yombul ndox de waaw lay mel noonu muy seetee su néew ñett ñeent aw kasir wala muy rufqa bu bari waaye mu mu mu sàkku ci ci ci ñu lu néew min kasiratin in jahila ndem réere na box lawum seen nay bii ñoom ñii kat ko jege di bu xamul ne ñoom kat ñu nay ci ndox mi duñ maye ndox booba la koy war waaye bu xamee ne ñii kat wóor nee duñ ko may ah su loolu mu di ko sàkk baab bi nga gise bopp dégg nga in jahila balay koy sar sàkku ndox gee war in jahila ndem réere na boxlawum seenu nay ñoom ñamu koy rofxa seet sa nga xam ne ñoom lay àndal wala ñoo jegeeg moom wala ñoo dend moom ñoom wa ba tey war na ci aji tiim ji naka noonu aji aji jàpp ji sax ndax ci tiim moom du daganal wa istibaaxatu salaati du indig laab du du indig laab du dindi xadas waaye dina war na niyetu istibaaxati salaati yéene daganal julli ci bi muy jàpp bu mu dikkee ba ci xar kanam bi di ko raxas fas naa yéene daganal julli ndax xam nga ko am xadas julli daganul ci yow sañul sañuloo kàmbare dal di julli léegi nag boo jàppee mu dal di dagan ci yow nga yéene loolu nag yéene ci dal julli dagan ci yow ba nga mën a dal di mën a boo àggalee rek dal di mën a kàmbare istibaaxati salaati wa niyetu ak barak ba tey war na mu yéene toj mu mag inkaana dem am na moom toj mu mag xam nga xadas mooy toj mu mag xabas mooy bu mag ndeki tey dafa waroon sang farata buy tiim dana ko yéene waale bu fekkee ne day sangu daf koy yéene yéene daf koy yéene dindi ko waaye jëf ji kese du ko ëppale inkaana dem am na walaw takararat doonte takkaraar woon na itam du tee dana ko yéene waat waxtu ki la teere waxtu wuy tàmbali waat rek dana ko yéene mu ni laay wala wala yarfau waaye du du yëkkati moom tiim alxadasa toj daganalal na la rek nga mën a julli waaye sa xadas mu ngeeg yow fii amee woon jàpp fii jàppuloo yaa ngi xadas bi nga demee ci maanaam fab ndox dindi nga xabas xabas dañ ne amatoo xabas waaye yaa ngi xadas fii jàppuloo léegi tiim du la tàggaleeg xadas nag wawaar na ba tey taami mu ci fii mu matale xar kanamam nga ngay tiim te ngay tiim dafa jafe ñuy wax gis naa dégg naa ci rajo bi ak télé ñu woyofal ko lool bu dee suuf ci suuf nga tiim nii bant wala dara ajoo ci sa loxo am la ñuy def nii ba noppi soo ko def kanam waaye def nii kanam moo gën nii kilewaat nii bii moom laalul fenn du laal fenn dema dema dema dem dem ba ñëw ba dugal koox yi ba tey laalagul fenn def nii dellu si moom fii rek lay laal bii dal di demati moom it moom it bii de laalul fenn du laal du laal du laal ba ñëw nii walbati ko tam ci biir ndox bi moom it de fii rek la jëbal waaw noppi nag nga daal di kon bi nga kanam gi danga koy matal matale lépp lépp lépp lay mat
kon boo dee julli nii si julli julli farata kon boo dee julli farata kon
waaw waaw léegi boo fekkente ne yaa ngi yaa ngi tiim da nga ci boole waale kii bi daal maanaam bu fekkee xaama iqaama waaw boo dee julli yow dong waaw ndax iqaama ci julli gi la bokk kon mën nga ko war a jokkal waaw te boo koy def da nga war a jublu penku iqaama kon ci julli gi la bokk ba noppi te boo ko defee waratoo waxati fekk kabaruloo daanaka kon moom ci julli gi la bokk boo iqaamee ba àggal rek dal di kabar nañu waxoon ci charte takbiratul ihram
waaw kii boobu ñàkk kii maanaam baaraam boobu ñu naan nga ne du laal fenn tuuti waaw ndax kooku dafa am maanaam ci wàllu sunna la wala ci nan de maanaam lu ñu rey ci nan loolu waaw moom ci ñu rey cent bi kayfiyee dañoo dañoo solo kayfiyatu salaati nabi sallallahu alayhi wa sallam kayfiyatu teebu yu nabi kayfiyatu yu koy mu lim ci ay ñan ñoo ci gën a ñuroo aw jàppin ak yonent bi ñan ñoo ci gën a ñuroo aw tiimin ak yonent bi ñan ñoo ci gën a ñuroo aw julliin ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga téere yi daañu la wax farata yi ak sunna yi ak ni ñu koy defee wante am na melawu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa mu defee boo xam ne moo gën xeetu salaat ala nabi bokk na ci lii ñi nga xam ne ñoo tegtaloo sëddlu dañ ne fi ñu seet fi ñu bind fépp kayfiyatu salaat ala nabi kenn tuddul xam kon sëddlu bu fekkee ni itam yaa ngi rukkoo nga ràcc sa baaraam yi nii loolu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee nag yaa ngi sujjóot nga kiile ko nii te boo sujjóotee nii ngay def sayyidatuna Aïcha nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu daan sujjóot su bàyyi ma bëggoon a jaar fi gën a fi jaar nii nii te sa fiit so rek sa fiit mu ne ko noo ko ibnu Asi waxe wal bat na min fardin rijaal idun da axiri fii waaw mooy ci beneen am na benn téere bu ci dem boo xam ne sifatu wudu nabi xam naa mooy kayfiyatu salaat nabi exactement kay fiyee jëfam yëpp téere yi nekk nañ ko kayfiyatu salaatu nabi kayfiyatu wudu nabi kayfiyatu tayammum nabi ila axiri ba ci jekkinam ak doxinam imaam ahmad ibn hanbal daawul lekk xaal ndaxte nee na xamul woon nan la ko yonent bi sallallahu daan lekk daal ñoo xam ne dañuy dema ñoo koy ñoom xam nañ ne duñ ko waral kenn ñoom seen bopp rek ñoom comme ni imaam malik sibee taqbiilu bi yadi waaw moom sibu ko pour ñoom ñëpp moom comme si Ahmed Tidiane ñoom sib nañ ko ci kaw maanaam ci seen bopp ndax nee ñu day war a rëy ak gis sa bopp ak yooyu wala ku ko deful nga jàpp ne daf laa manqué wala fay li nga mu ne kon ka rufqatin qalilatin wala awhaw lahu min kasiratin wala ci li ko wër bu fekkee ne rufqa bi dafa bari ñi ko wër rek la ko lay laaj in jahila limri'un buxlahu ñu ngi koy laaj wa niyatu istibaaxatu salaati wa niyatu akbara mu ni wa in kaana in kaana walaw takarrarat walaw takarrarat dégg nga waaye laa yarfau laa yarfau du yëkkati moom kii alxadasa toj moom tiim wa warda ba tey taamim wajhihi matale xar kanamam wa kafayhi ak ñaari kafu du lii biir loxo bi rek biir ba bitti bi la lii rek la muy kaf moom farata la ci tiim ni mu nekk sunna si njàpp farata la ci tiim kon war na war na ko matale dégg nga bu ñu waxee taamim mooy ni ma barba bi ma wax defoon bu njëkk ni ma ko misaale pour taamim bi ñëw yëpp nga xam ne léegi yëpp boo filee sa kii yëpp am na ñoo xam ne sax duñ ci àggati fii suñu waaye nga xam ne kanam gii ak lii mu fàtte war nañ ko matal ba mu dégg nga mu ni kon wa kafahi bi kuuayhi ci ñaari kuux yi mooy fii waa war na ba tey nasu xaatami yi ci tiim musumi jaaroom wala mu wëndeel ko bu yolomee wa saidun ak pàkk tafara boobu laab na farata la pàkk mooy suuf ak lu ca jokk te du lu sax luy màgg bu fekkee ne xeer la wala bu fekkee ne sax min la dañuy gas xaalis di ci génn wala wurus wala zibaq wala leneen lu mu doon xam ne ci maadini la bokk mën nañ ca tiim feeg toxaluñ ko yóbbu fenn wala feeg jëfandiku doomu aadama dugg ci masalan xaalis bi bu ñu ko tëggee def ko monnaie du ci mën a tiim waaye feeg ma nga fam nekk doomu aadama it fekk ko fa jëfandikii ko ci jëf goo xam ne daf koy dafay soppi maanaam forme bi sax dagan na tiim ci waaye bu ko soppee dootu tiim wala ñu lakk ko
waaw doo gisee ni ñuy defal ko.
waaw doju gën yi moom mën na tiim mën na tiim ndax ci géej gi rek lañ ko ji du sax doju doon d'ailleurs du doju dënu moom wala fee ko wax waaye jógewul ci dënu amul doj dënu moom électricité kese la xeer yooyu nag ci géej gi la am ñu di ko roulé nii ba mu ndax noonu yàgg depuis ay junni junni ak ba mu fi dana fépp ñu di ko for yeneen doj war a joxe.
ah yeneen doj war a joxe.
beneen doj boo tojoon itam bu fekkente ne lakkuñu ko waaw bu ñu ko lakkul nga xam ne ciment yi moom dañ koy lakk moo tax du moo tax du mën a tiim waaye bu dul loolu dana mën a tiim mu ne
ci kii maanaam xeetu doj yooyu xam nga am na façon doj yoo xam ni maanaam ñi nga xam ne ñoo xaw mën seen bopp léeg-léeg ñu jël ay xeer yoo xam ni du sax bëri waaw lakk ñu koy waaye dañ ko yett daal am na yett bu ci def waaw am waaw kooku du ci wàññi dara mën na mën na ci mën na ci ndax soppi soppi ko bu ko toggoon nga xam ne togg moom daf koy jëlee ci nature bi dem ci biir dugg ci beneen nature bi waaye bu ñu ko rataxlee wala ñu sewal ko wala ñu mërëgal ko ba mu kii yatu ko ñu ci ba tey doj bi baax na noppale ne waaye ba tey suuf see ko gën moom suuf see ko gën waaye bu fekkee ne dafa am doole ndax bu ñu ko dee indi suuf fi mën na tilimal jàkka ji suuf si rek suuf si it suñ toxal suñ toxalu la ko gën suuf sañ fekk fa mu nekk nga tiim ci moo gën ba tey dégg nga mu ne quatre bi naka noonu la suuf ci jàpp ci waxu moom alafdalu mooy li gën wala nu xila donte taxaloo ko suuf si même bu ñu ko tax mooy ñu wax léegi mu indi ko fii pour lu woon li muy tilimal jàkk ji mu gën dojee wala nu xila wasal jin ak neige dégg nga waxat xaaba ak biniitu rëmb-rëmbal mooy ban boobu nga xam ne ndox mi dafa taa ba mu gis mu des dafa xam ne soo ci duggee da ngay tox ci biir day dugg mën nañ ca tiim wa fiya nu ñu firee wa fiya jaa ngi fa ne ca mu dawana mu bopp wa fiya jaa ngi fa ne ca mu dawana ne jàpp fa fendlat na yedee ci ñaari loxoom ci bëri turam rëmbal da nga ne nii ci bënit bi yëkkati bu paxib ñu ne la bala nga koy diw ci sa kanam nga nga kii ko tuuti ngelaw li ko mu xaw a wow moo gën nga ribés yàq sa kanam trop noonu waaye jaf fa la kii wax moo ci waaw jaf fa ruuye soley fat na bi jiimin ci jiim gi ne jaf fa waxaa nag xaa ne xaf fa fa wooye falat ne maanaam sadd bi ndànk lay teg ndax bañ a bës bañ a ribés kanam ba tey ñii dañoo solo jaf fa ñii ne xaf fa xaw ma imam Maalik li mu waxoon wa gis sin naka show dañ ko togg lam yot bax nag bu fekkee ne toggee fu ko nag mën nañ caa jàpp mën nañ caa loolu tiim wa ma addina ma la ma doon wax nga ak mbel la mooy miin moo xam miinu xaalis la wala wurus wala miinu lu mu doon rek ndax suuf mooy cosaanam waaye xayri naqdin ah nee na kat bu mu kee naqdi nag bu ko waxee kee mooy lan wurus ak xaalis waaw wurus wala xaalis bu ci ne kee la wa jawharin xayri naqdin dahabin wa fiddatin fa in kaana naqdan fala yasaxu tayammum alayhi ah ñaari wax la li ma waxoon bu njëkk wax imam ashab la ante siiwul siiwul su naan daañu ko gis ci tox fa insha allah dégg nga wa jawharin moom per la mooy per nga xam ne mooy li ñuy wax al ahjaarul karima les pierres précieuses boo ci tiimee wala yàqoot ah dégg naa ci déedéet dégg nga lu mel ne que yaakoot yasen la ko tubaab bi wax sent dégg nga wa zumrud bi mooy émeraude man xóoli man xóoli man xóoli ah wa man xóolin loolu baax naq wa jawhar wa man xóolin ak lu ñu toxal ah man li nga fu mu nekkoon ci àddina dégg nga wa jawharin ak per mala xeer xeer du xeer rek xeer wu ñuy woo xam dafa am njëg daal muy alxajaru mooy pierre précieuse daal lu mel ni ki aqiq bu ñuy def jaaro aqiq yi wala émeraude waaw yacinthe diamant waaw waaw ak kii waaw yooyu yëpp yu yu yu nga xam dafa am njëg yooyu yëpp bu donte ci suuf la juddoo itam dafa bokkul ak bokk ci suuf nature man koo leen am lu ñu toxal dégg nga lu ñu toxal nag moom dañ koo jëlee ci bérébam yóbbu ko ci beneen foofu
ci ci maadam ndax du ko waaw
maadam boo xam ne xëyul na fi xayru na fi bu na fi mbokk la ngeen ma léegi laa ma laa ilaa mahallin aaxar mu jógee ci béréb bi ndax suuf si sax ci boppam nga fekk ko fi mu nekk moo ëpp valeur nga jëlee ko ci def du ko yóbbu fee waaye ba tey moom it moo gën doj ndax doj ba tey lu ñu toxal la sax te suuf dafa gën a nekk tabiya yi bu fekkente ne itam itam maatum bi kenn liggéeyu ko dañ koo fekk fu mu nekk waaye buñ ko toxalee li ma waxoon sànq buñ ko toxalee këchab bi naka noonu korooj wamilin ak xorom korooj de la wala fi wax man xam nga korooj xor la waaw waaw am xor xor yu yu- mooy korooj waaw waaw am xor xor yu yu- mooy korooj waaw xor yu xor yu jóge ci géej yooyu waaw waaw naka noonu mën nañ cee tiim wamil yi ak xorom xam nga xorom moom it ay xeet la sel marin li ñuy wax sel marin sel gem sel gem defe naa misaaloon naa ko fi keroog ci suuf lañ koy gasee li ko fi indi mooy xam nga béréb yu bari léegi géej la woon bu yàgg géej dafa ànd ak xorom bu ngiisee li ci des dem xorom si des fi ngelaw li sëkk ko mu nekk ay doñ yi lal nii nag bu ñu gasee Mali bari na ko waaw Sahara bu ñu gasee ba jot ko kooku moom ndox mi moo kii bee suuf si wali maridin waa dagal na li maridin ñeel aji feebar xaait labinin mu tiim ci miir bi bu fekkee ne miir bi labin rek la maanaam du lu ñu lakk du ay simon ak ki lasoo ki yooyu lu dul ban lañu tooyal benn ñu jaxasi ci ñax wala ñu bañ ci jaxasi dara ñu mool ko tegle ko noonu kenn peinture dul ci kawam donte lu ñu toxal la waaye dagan na ba tey marit rek waaw marit marit bi wax nga marit bi moom euh, dafa am daruri nga dégg ci ne kon ku dul marit dagan ci moom waaye nag mooy ki nga xam ne daf feebar feebar ba nga xam ne mënatu la mënu la jëfandikoo ndox aw xajarin wala doj waaye laa bi xasirin bi ci ak yéen ci tasrant leeso yi nga xam ne ay bant la li ma waxoon sànq ne suufam du ca jokk lu dul lu sax di màgg bu fekkee ne ndax bant yooyu dañ koy xoofe ci géej gi wala ci kile yi àll bi du ci mën a tiim wa fi'luhu ak ñu jëf ko fil waxtu ci waxtu bi nga xam ne waxtu wi jot na te soog a tiim waaye mënu loo tiim ba pare di xaar pour waxtu wi jot fala ayisu dellu si moom xalis noonu lay def de fala ayisu aji naagu nag ci amul ndox dana tiim aw walal muxtaari ci njeel biir waxtu muxtaar wa wal mutaraddidu aji deng-deng ci xam jàngoof ni si mu dawana taxiruhu ak yéexeem almaxriba timis nag moom li shafaqi ba shafaq si bëgg a fàddu dégg nga moom aji raay aji yaakaar ji wa sunna sunna lay fat na tartibuhu ak toftaleem waaw boo defee di rek teg ci li ci des tiim waaye doo teg lii yàgg nit boobu yàgg ngay tiime si li ngay defee si li ci des wa ilal mirfaqayni aag itam moom itam sunnaaleef na mu dem ba ca kii fii conco yi wa tajdiidu darbatin ak beesal sadd bi ñaareel bi lie day yi ñeen ñaareel loxo bi xam nga njëkkoon na nii ba def ci loxo bi kanam bi ak kii mu dellu kii ak yoonu ñaareel daal di dem maanaam beesa bees daf koy yeesalaat ndax xëy na li ci taxoon ci suuf jaar bi mu jaar ci kanam gi jaar ci yi mën na dañ wala yooyu rek ba tey du tee dana doy sax nag ndax moom tiim daanaka toroxlu rek la li la manqué ci laab moom ngay mottali ci toroxlu ak wàcc ak suufeel sa bopp ci saxaaba yi kan laati dafa amoon ca ngaay war a sangu amul ndox mu furóoñu ci suuf si furóoñu furóoñu furóoñu taqal kanam gi bërëm daal di kàbbar ñu ko waxee yonente sa mu ne mu ne moom ne bu tiimoon rek mu doy booba xamoon na ne bu amul njàpp nga xam ne xadis rek la amee mën na tiim waaye ndax bu amee xadis tëj mu mag maanaam war a sangu ndax tiim dana doy wala déet boobu wàcce ay jooj wàccegul mu furóoñu ci suuf si am na dégg xam naa ne nag yonente sa mu ne mu ne mu ne bu tiimoon rek mu doy wala ñu ko jëlee nee nga mu ni kon wanu di ba soppeef na ati fàttmtd wanu di ba kon soppeef na tasmiyat nga ne bismillahi booy booy ci inde sabati inde darbati loola rek booy sabki na bu batun ak tàmbalee bi zahir yum naahu ci ñaal njaar ci bitti ndeyjoor bi comme ni ma waxoon njëkkee fii mooy bitti bi biir bi mujjee ko tegaat ko ci dégg nga mu ne waaw fu mu fu mu waaw
ñetteel ba wala boog ñeenteel ba ci tàmbali am na am na ma def bi islam ah ci beneen ci bi place bi la de nga den kool ci beneen ma tax réer kay dégg nga ubatun ak tàmbali bi zahir naa ci bitti ndeyjooram biis raafu mu di ko def ak loxo càmmoñam la koy masaa ilal mirfaq ba ca mirfaq ba comme ni ma ko misaale woon rek su ma masul baatini topp masaa biitu biir loxo bi mooy ni ma wane woon rek li aaxiril asaab bi ci mujj baaraam ba ca cati baaraam ya su ma yusraaw topp mu def itam jëfee ci càmmoñ bi kasalik ni mu jëfoon ci ndeyjoor bi bu batala yàqoot na moom tiim bi mu bi mu tëlil wudooy ci lépp lu yàq njàpp yàq na tiim nga dolli ci lan wa bu wujuudil maay ak amul ndox qabla salaat ci nit fekkee ne ñàkk ndox la taxoon di tiim léegi nga dem tiim ba noppi war a jóg kàbbar fi ngay kàbbare nga séen ndox muy ñëw tiim ba yàqul waaw kooku bu fekkante ne daal tiim bi mu faral ci tiim bi mu faral te gis tànn di ko sàmmonte moom ba tekku saa man ngaa julli rek ci loolu bu ci yàgg bu ñu sësoo woon it doo ko mën ñaari farata kenn du ko boole ci benn tiim waaw xaw nga tiimal bu nekk mën nga tiimal farata rek naafile sës ci nga teg ko ci boo ko yéenee woon waaye man nga cee jàngal ko am na waaw boo ko ci yéenee te mu topp ci mu mujj julli gi jiitu ko ba noppi waaw waaw nga nekk ci biir julli gi am ndox ay suwar yu bare ci nekk nag ay suwar yu bare la nag dégg nga ci ñi nga xam ne ndax xam nga fii wax na ki nga xam ne ñàkk ndox moo ko taxoon a kàbbar moo ko taxoon a tiim ba kàbbar kooku moom du yàqu ki nga xam ne nag dégg nga ndax ki ki nga xam ne ki nga xam ne dafa jiital maanaam fi ñu ko tiim loo woon àggu fa mu tiim am na ay bayt yi dafa nekk ka waajidil miyaaxi inda raxlihi am ay bayt bayt la ay suwar la dégg nga mu ni kon bakara yàqoot na moom tiim bi mu tulli duy ci aji yàq ci njàpp lépp lu yàq njàpp dana yàq tiim wa dana ca loolu bi juudul maa ngi ci amul ndoxam xam la salaati ci lu jiitu mu julli waaye laa fiya du ca gidi ci biir julli ga ah ñu ne faw mu ne ah illaa nasiyahu ndaree aji fàtteem nga xam ne nag dafa fàtte bokkul ak ki nga xam ne moom dafa amul woon ndox ba kaba ba ba tiim kii maanaam dafa dencoon ndox fàtte ko.
fàtte ko.
ci biir julli gi fàttaliku na fàttali dencoon ko ndox.
ne amoon na ndox mooy que te xamal la ne indi que daakiril ma ma indi rahlihi waaw xam nga ñoom dañuy misaale ci ni ñuy doxee ni seenu dund rek euh, mbaam mi nga xam ne ci la sëf jiw ndox mi mbaam mi dafa dem foofu indiwu ko mbaam mi dafa dem gisatu ko ba muy tiim wala daf ko fàtte daf fàtte woon ne am na ndox kat mu ngi mu sëf ci mbaam mi dégg nga mu ne wa yooyu dana baamu al muqassiru aji gàttañ la fil waqti mooy li ñu waxoon dana dana baamuwaat ci waxtu waxtu wi mooy kii nga xam ne kat dañ ne koon demee ba ci digg waxtu wi nga soog a tiim ni ki mooy mooy mooy ku doon dégg-dégg mu tiim ci njëlbeen waxtu wala ki nga xam ne dañ ne ko ca mujj waxtu ngay tiim mooy ki nga xam ne yaakaarul ndox yaakaar na ndox mu dal di tiim ci digg waxtu wala ci njëlbeen waxtu mooy almuqassir dana baamu de fil waxtu wa saxat wérat na in lam yu bu fekkee ne baamu tin kawaajidin kawaajid yi naka aji amul ndox bi qurbihi ci wetam rek aw raxlihi wala ca raxlaam waaye laa in zahaba raxlihu aha moom daal loo misaal rek mu ngi ñëw dégg nga lëf kee dem mënatu koo jot moom xam na ko xam na ne dafa dem wa xaayifin lissin ibnu ashir ka xaayifin lissi wa raajin qaddama wa zaminin munaawiran qad adima wala ah yéen waaw ah jàngu leen ko
maanaam dafa des waay.
yéen a doy waar maa nga xam ne boo ko jàngee rek xanaa léew mat ñeen fukki at dégg nga Euh, aji ragal ji coupeur de route yi addu kalpe yi ndox maa nga fële waaye ay féeri boo fi jaaree bu soobee dañ lay rey rek fab li nga am ah xam nga aw aw sabu in wala mu ragal ndog ment fii dafa am ay gaynde booy génn gaynde ne la et day toog fii aw maridin ak aji feebar koo xam ne adima ñàkk na mun naa wel ko indil ndox mi dégg nga kooku ñooñu ñëpp dafay wax ni nga xam ne euh, dañ leen a booleeg ki nga xam ne euh, dañ leen a wutaleeg ki nga xam ne dafa def taqsir dégg nga li mu waroon def defu ko waraajin ak aji yaakaar xaddama ko jiital na ñooñ ñëpp ñoom wuutal nañoo ki nga xam ne am na ngànt te mooy ki nga xam ne ah daf ko fàtte woon wa mutaraddidun ak aji déng-déng fii lu xooq ci jotu ndox wa naasin ak aji fàtte zakar ak wax ay ay ay ay suwar la zakar ko fàttali ko na mu ba daxaa ca gannaaw bu mu jullee ba noppi ñooñ ñëpp lu mu ci wax ci ñoom mu ne leen
ñoom baamu lii baamu baax na baamu lii baax na waaw waaw mu ni ka muqtasir naka aji gàttañlu ala kuuxihi ci koo am waaye laa ala darbatin kooku waaw ba tey ci waa ji doon tiim te mu salatu fi du abadan wujuban ka muqtasirin fi tayamumihi ala mashi yadayhi li kuuxihi rek taarikan masxuma li mirfaqi fa yuidu fi lwaqti bu fekkoon ne farata la day jaamu ba abadan day day baamu ba abadan waaye li nga xam ne sunna la moo tax dana baamu ci waxtu waxtu wi day baamu am na lu ñu koy def ñoom nga xam ne dañ koy day def ko.
waaye waxtu yu yéen sax bàyyi na waaw ndax wér na ndax du farata sunna la bàyyi mu mel ne ku bàyyi ci sunna ci julli sunna suñ fedd la wala ñaari sunna ngay ngay sujjóot sujjóot sujjóot bu fekkee ne sujjóotu xabla la boo génnee jàkk ji wala nga toog mu yàgg mu yàqu da ngay baamuwaat julli bu fekkente ne bu fekkee ne mat na ñetti sunna bu fekkente ne sujjóotu baada la wala bu baadi amin la wax fii at foo ko fàttalikoo rek bu fekkee amee nga jàpp da ngay dal di kàbbar daal di rot sujjóot baada salaam bu fekkente ne itam nag amoo njàpp nga dem jàppi daal di ñëw kabar kabaru arma toog daal di sujjóot baada salaam yéene baada salaam sëlmal dem sa yoon dégg nga mu daal di ne waaye laa ala darbatin de du baamu ci waxtu de ki nga xam ne dafa gàttañ li ci benn sabb bu njëkk bi rek ne nii rek dal di ciy tiim yépp te ñaareelu mu ni wakkat mu teyam mi naka aji tiim ala musa bi bawlin ci béréb boo xam ne sa saw daf ko laal ko jot kooku itam daf koy limalee ci ñi nga xam ne xam nga loolu sax ba tey dana ko indi kii daal loo wax rek dana ko indi bi dafa am ci fuqaha yi ñu wax ne suuf bu wooyee rek laab na ka xaw li bi jafaaf bi taxaarati ardi bi jafaaf waaw dégg nga kii Moussa bi boobu xam bu fekkee ne wër na ne fi mu tiim lu sobe la bu dul wër ne dafa nattale ne xëy na suuf si gannaaw wow na saw mi gannaaw wow na léegi dootu sobee noonu garaawatu bu dul wër loolu dafa war a baamu ko faw ci mag waaw ka Moussa bi boobu dégg nga ka ka mu tey mi nekk aji tiim alaa Musa bawlin ci bérébu jotuwaayu saw waaye wa uwi la jàmtalee fat na bil maskuuki ci fu ñu sikki sàkk fi kat wa bil muhaqqaqi ak fu ñu dëgg ñu ne ah bañ koy waxit kat dañoo sikki sàkk ne moom kat dañoo sikki sàkk rek ndax ne fii mu tiwi daal dana am am na saw saw amoon na fi waaw kooku la ñu wax ne dana bàmmu ci waxtu waaye bu dee mu xaqaq kat mu wóor ne taxqiqiyan fi mu fi mu tiime moom sawa fi newoon ah kooku day bàmmu ba faw ndax amul kii amul tiim ala mu ne si ñu fi waxtu dégg nga kon ñaari wax a fi nekk waxta sara gàttañ loot na alal waxti ci waxtu wi li ma doon wax moom loolu bëgg wax rek loo wax rek dina ko waxe mu ni waxtu sax gàttañ lot na alal waxtu ci baamu ci waxtu rek ba nekk baamu abadan bil lil xaay di ngir waxi aji wax ji waxoon bi taxaarati lër di mu wax ci laabuk suuf bil jafaafi ci fendi gi ne suuf bu fendee fii kooku noonu ma ko waxe woon ne li ñu li tax ñu wax baamu ci waxtu rek te bu waxtu wéyee ñu bàyyi bañ a baamu woyofal googu dañoo gendiku ki wax ne suuf bu woowee laab wa mu ni ah tere fat ne ko ma a adami ma in ànd ak ñàkk ndox lu ñu tere moom waa ji moom mu ka maanaam wa mu ne al mukallaf bu fekkee ne ndox amul taqbiilu mutawaddin waaw mutawaddin feeñal na lépp seet foonu aji amee njàpp kii amee na njàpp ba pare mu xam ne bu ko defee waaye ndox kat xamunu bu njàppam yàqoo dootu ko am ndax ndox ñàkk na moom mu ngi amee njàpp ba noppi mu dem mu dem di ko def te xam ne bu ko defee njàpp mu yàqu tere nañ ko araam na li muy araam na ndax comprendre nga waaw wa jimaa un muxtasilin naka noonu booloo aji sangu ba noppi dafa sangu farata ba pare xam ne ndox amul mu bëgg ko defaat te ndox amul araam na day fontu ñu ne ah kooku du ko sañee mu ne ah indaali tuulin pare bu yàgg lool nag bëgg am ñàkkum ndoxum ay at wala weer nag duñ ko traité.
waaw foofu damaa bëgg ñu tuuti seen la. ñu jaama wala mu yem seen xale moo tabar am suuf janaaba ci am la.
ah waaw. ah waaw janaaba. bi doxoo leen xasee ba mu xëy la sax. xasee ba lay kii. dégg nga. mu ne wa in nasiya fekkee ne dafa fàtte ixdaal xam si kenn si julli juróom xamul bu mu te mu mën a ta tiimul julli xam san juróomi julli xam ngeen koy leer na waq dima ji fat jiitalee fat na nag zuma in borom ndox maata koog deena ba ma ahu te ànd ak moom juróomun aji janaa boobu léegi li am ci ndox borom sangaayal farata wi bu ci sangoo mu jeex buñ ko ci sangu bu ci sangu lu ñu sang ci néew bi mu jeex waa ji des ak cangaayal farataam wala ñu sang ko ko néew bi toog du fi mën a toog yàgg faaw ñu suul kon ñu suul ko bañ a sang ñu ne ku moom ndox mi ñu ne xanaa borom ci ngaal fara fi sangul wala ku moom ndox mi ñu ne néew bi nañ ko ko sange waa ji seeti seeti pexe bu ko ci mën ci moom.
waaw comme moom la ñu ne waqt bi ma jiitalee fat nag bu maa im boromum ndox maata ko deen maa ko te ànd moom jël waaw ñu ne faw mu ne illaa li xaw fi atasin ndare ngir ragal mar léegi nag muy borom ci cangaay bi muy néew bi boo xamee ne nag mar boo xam ne xamuñ fu muy yemi ci dee lay indi wala déet ah mar wi la ñuy jiital nag ka kaw nii naka mu nekk moom ndox ma lëxumaa ñeen lit ñoom ñaar ñoo bokk ndox mi bu fekkee nag ñoo bokk ndox mi borom dañuy dañuy jiital ba tey fi nga xam ne mooy néew bi waaye xam nga cangaayal farata lan la tudd naa ko nee naa farata ñu ne cangaayal farata nee nga farata la cangaayal néew lan la
cangaayal néew moom farata la rek baay farata ñaari farataal waaw ñaari farata moo tax ñu jiital borom ndox bu ñu bokkee ndox mi
moo ko néew nag dëddal leen ko.
bu ko defee léegi kenn du mat le kon kenn du ci mat le bu ko defee léegi borom néew bi waaw.
kooku léegi moom la ñuy sàkk léegi tey waaw kii d'accord lu tax parce que léegi léegi li moo priorité kon néew bi waaw néew moo lu priorité tax nga priorité waaw ndax léegi léegi ñu ko war a denc.
mën na yàqu waaw mën na yàqu moom gën na dina gën a dund yàggale mën na yàqu waaw kañ tawaay bi mën na wuti ndox wala mu tiim waaw lu dul nag ñu ragal ak yàqu ak alkom ci ak alkoom ci smart mar waaw kañ bu ñu xamee dana mar te nag mar mën na ko waree nag ah ñu suur waa ji néew bi noonu xam nga góor la ko ma jigéen mën naa ko xam boo xam ne sànq yow attasu moftare ni maro ku ñu war maal ko ànd ak moom moo xam xaj la wala xar wala béy ndox mi nga xam ne bu ko jàppee kooku xaj bi maro yi dana ko rey wala bu ko joxee xaj bi mu naan ko moom du jàpp mu jox ko xaj bi mu naan ko kon kay faaw laa ko gën doomu aadama waaw dégg nga mu ne boo ko dima ba maaw ñu parce que wu nit la waaw kañ ka kaw nii nag ak nekkam yow maa ñëw la ñoom ñaar mooy li misaal léegi bu ko waa ji kii bi la ñuy jiital borom borom dee gi la ñuy jiital dégg nga illaa li xaw fi atasin ka kaw nii lahuma mu ni waddami na warlot na nag xiimatahu xiimaam bu fekkee ne dañ ko ko joxe te muy ndoxum kee nag waaw dañ ko fa dañ ko warlu bu ko kee baalul dañ ko warlu maanaam danañ ko fay wa taskatu dana rot salaatun julli wa qadaa'uha ak fayam bi adami maayin ci ñàkk ndox wa saidin ak fàkk waa joo xam ne gaynde daf ko dàq ba mu ne ñolot yëg ci kaw garab gi gaynde ji lànk bañ a dem tëdd waxtu yi jot amul ndox de kon xam ngeen amul pàkk itam fu mu jullee waxtu wi wéy gaynde gi dem wàcc du fay du fay.
xanaa ko wala mooy kii maanaam comme que am na bi maanaam bi ma fi dikkee maanaam bi ma fi bi ma fi dikkee jaar xam nga de xam may doon man ko man la may jiit maan wala moo tay ma bokk na xaalis ki na sa bisali weex dexet si maa xaal malik wa asbax yaq di la ada alesam laalaa li malik ak sa ibnu xasim laa naa xam li asbax naa am laa leesam kon laalaa li malik moo ko waaw mooy kooku moo tax mu ne wataskutu dana rot kon asalaatu julli wa qadaa bi adabi maa in wa saidin gën
man de
waaleykum salaam ne nan jubal xocc ci kaaba gi ndax mënuñu ko waaw waaye bu fekkente ne da ngaa tiim kaaba gi doo mën a julli fooy julli doo mën doo mën a jublu ci kaaba gi waaye yow leer na la ne lii am na waxtu bu muy dañ
waaye bu dee bata moom.
ak waxtu mun ko dëgg moom faya duru ma moom defe naa wax na ak taa da nga ko war a julli wala dara.
waaw
léegi bu dee saxaar nga xam ne amuloo pàkk si amuloo. doo- saxaar it nga nekk ba wàcce gën de waaw doo mën a julli julli bu baax
am na ñu julli ci avion bi.
am nañ julli avion mën nañ ci julli Est-ce que- waaye nag daf fekk ne am na yu bari yu dul sàmmoonteel xëy na dëgg xam wala bu fekkee ne xaw nga jege Arabie Saoudite moom wóor na ne boo jullee doo jublu ci kaab gi ndax da nga koy tiim da nga koy tiim bu fekkee ne fii diggante fii ak Amérique ak France ak yooyu la boo yoree buusam nag. donc kii bi ci biir waaw avion bi.
boo ko tiimul bu fekkee ne fi nga kilee xam nga avion day kawe ay 15 kilomètres ci kaw ak yooyu ak 14 kilomètres xam nga foofu da ngay tiim doo jublu ci kaaba gi loolu moom mooy yàqu-yàqu bi man de am na lu mu bëgg a leer. xadis bi ne talabu yeneen yi. faridatun ala kulli muslim. ilmu boobu mooy tax.
mooy xam farata yi farata yi nga xam ne lislaam teg na ko ci sa loos mooy xam na ngay jaamoo na ngay jullee na ngay woore na ngay ajee li ngay yi ngay def yëpp na nga koy defee yi ngay tax sharia moom dafa àtte mboolem jëfi mu kàllaf yi jëfam lépp ni muy lekke ni muy naane ni muy jaayante ki jëndantee ni muy séyee ni muy relation yi muy am ak nit ñi lu la war ci kenn ku nekk ak yooyu yëpp xëy na yooyu yëpp sax nit ki mën na ko bañ a xam waaye am na li nga xam ne mooy farata ji nga xam ne mënul ñàkk moom bu ko bu ko sababul bu ko sàkkuwul dana ci am bàkkaar bu fekkee am na ñu muy jàngale wala ñoo xam ne bu leen ko laajee ñu wax bu fekkee ne loolu amul nag du ci am bàkkaar waaye loolu dana am mooy farata yi nga xam ne mooy yi muy ni muy jaamoo yàlla kooku war na koo xam musulman xam farata yi suñu waaye xam kayfi bi na mu koy defee na foofu rek la tënk ci la yem
waaw bi nga xam ne farata la daal mooy loolu ilmu nag dafa bari xaddis yu rapporté ci ilmu ak ay ay alquran innama yaxsha allah min ibadihi al ulamaa beneen dëgëre la bokk la du xam sharia rek sax yem ci xam sharia ak xaqiqa la Muhiddin Ibn Arabi nee na jëmm ji nga xam ne xam na sayrul kawaakib yi xam sayrul ardi xam ilmul xayawaani wa nabaati min xaysu irtibaatiha bi qudratillahi laa min xaysu dawaatuha mu ne kooku ni muy xamee xikmatullaahi ak ni mu ci yéemoo ak ni loolu def ci xolam moom la gënee ki ko xam ni mooy xadis bi sallallahu alayhi wa sallam ne nawmul aalimi xayrun min ibaadatil jaahili am beneen xadis bu ne nawmul aalimi ibaadatu am xadis bu ne fadlul aalimi alal aabidi ka fadli abi bakrin ala saairi muslimina beneen riwaaya ne ka fadli ala adnaa muslimina waaw beneen riwaaya ñu ne boobu xam-xam ban la mu ne mooy xam yàlla xam yàlla xam ni ngay jaamoo ak xam yàlla bokkul lañ ne al ilmu taabiun lil maalumi bi qati nazari maanaam al ilmu fi zaatihi sharifun bi qati nazari ila jihati al maalumi xata anna man arafa shariata afdalu minhu man arafa allaha ida arafa shariata limaam alxasali ne li tegtal ne xam-xam bi ñuy wax ne ki ko xam moo gën jaamukat bi du xam sharia rek ndax li tax jaamukat bi bu xamul sharia day fo jaamuwul
bu xamul sharia waaw ñaareel bi mu ne xam sharia mënul a gën jaamu ndax sharia ñi ngi koy jàng pour jaamu te lépp lu ñuy wut ngir nàngam la tax ñu di ko wute ko gën xam booy bay tool ngir am xaalis xaalis a gën tool bi ndax xaalis bi li tax la tool bi li nga koy dee muy war a am xaalis léegi yaa ngi jàng fiq ngir mën a jaamu yàlla wattandiku li araam yem ci li dagal kon wattandiku boobu fiq xam-xamu fiq bi mënu koo gën ndax fiq bi yoon la wala yóbbu ci loolu rek mooy bi imaamu ahmadu bnu hambal ñëwee di siyaare cheikh maaruf karxi daal di boof ñi ci kanamam bu ñu jógee abdullahi doomam ñu ko waaw yow daa ngay def ci kii waaw maaruf karxi am na xam-xam xam na dara xam na xadis ana lu ñuy dee xam-xam loolu ngir bëgg a mel ni moom te maaruf amul xam-xam waaye xam na yàlla loolu la xam-xam mu ne nag xam-xam boobu nga xam ne nag moom la kii nelaw di jaamu yàlla mu ne mooy xam yàlla ñu mel ne yonent yàlla Muusaa ak Seydina Xadir Seydina Xadir lim xam Muusaa xamu ko Muusaa lim xam Xadir xamu ko la Muusaa xam moo gën li Xadir xam ndax Xadir li mu xam bindee fi yàlla yii la ak seeni mujj ak fa ñu jëm ak fa leen yàlla teg Muusaa moom dafa xam yàlla ko gënee xam ko am na Moussa mos ne xutba ci biir bani Israël ba mu ñu mën a ana aalam naas suñu borom mën na ko jël.
waaw dafa moom daje si na xarit.
ñetti jëf la jëf ñetti sabab la jëf jooju am ñu dafa am ak suñu borom junniy jotaay bu ci nekk suñu borom xamal ko ci junniy xam-xam bu jàpp ne kenn ku mel ne moom amul ci suuf si muy xot ba di laaj laaj leen ma li nekk diggante asamaan ak suuf lu ngeen ma laaj ma xamal leen ko mu yàgg ñu laaj ko lu mu xamul mu jaaxle bi mu dikkee ne suñu borom ana ko gën a xam ci nit ñi xam naa ne du man ndax am na lu ma xam mu ne ko soo bëggee yokk xam-xam ne waaw daf ne ko ki gën a xam mooy ki nga xam ne fu mu toll mu ngi yokk xam mu ngi mu ngi yokk xam-xam boo bëggee nag am xam-xam boo xamul woon demal ci maj ma ul baax ren danga fekk sama benn jaam boo xam ne booba demee mu xamal la ci la mu xam mu ne ko ku ma koy wan mu ne ko li ngay def yóbbal moo la koy wan mu demee ci kër ga mu woo Yuusa benn xale la benn booyam daal kooku yu yonante la kooku waaw Yuusa yonanteel Yuusa ne ko wutal ma yóbbal dafa am tukki bu sori may dem kooku dem jënd benn jën daal di koy firiir def ko ci pañe nàbb ko yonanteel Moussa yee ko ci njël ñu dem di dem di dem di dem di dem di dem ba jant bi toll fii ñu demoon nag ci yéeg ci benn daj boo xam ne mu ngi tiim benn géej géej gi mu ngi baawaan duus yi toog ba mu yàgg Seydina Moussa nelaw alayhi salaatu wasalaam Yuusufu di xoole ba gis benn duus bu dal ci doj wi fettax ay ndox dal ci jën wi firiroon jën wi dal di mëj mëj mëj dal di nii rek pañe bi këpp mu dal dugg ci ndox mi dem waaw yonteela Yuusufa di xool ba gis loolu toog ba mu yàgg moom it mu nelaw yonent yàlla Moussa moom njëkk a yeewu jógal jógal jógal njëkk daal di noonu mu ko gaawantoo rek mu daal di jóg moom it ñuy dem fàtte na affaire bi ñu dem ba sori mu ne ko indi indi suñu yóbbal bi ñu lekk man xiif naa trop mu ne ko yii ci nga doj wala tëddoon di nelaw fa laa ko fàtte ñu war a dellu farta daa ala asaarihima xasasan bi ñu demee nag bu dikk nag benn doj wii lañu tëddoon gis nga pañe baa ngi nii jën wi dugg na ci biir ndox mi yonent Yàlla Musaa xool gis jën wi mu daal di wokk mbubbam dugg dem ba jege jën wi ba ne nii mën a sarat dem mu dikkati di yoon ba agsi ba ne ko nii mën a sarat dem di ko topp ba séen benn nit bu taxaw mu daal di jubal nit ki bi mu dikkee ne ko assalaamu aleyka yaa abdallah nit ki ne ko wa aleyka salaam yaa nabiyallah mu ne ko ah waaw li nga xamal ne nabiyullahi la mu ne ko ah loolu day dara xanaa li ma xam a ëpp loolu mu ne kon waaye ji li ma suñu borom di wax noonu la amee waaye lu mu tas satee ma ay sabran yonent bi salaa sallam nee na bu amee benn bis bu ma war a fekkee bu ma nar a fekkee te du ma ca dolli ko xam-xam yàlla bu ma ko fekkee
waaw li ñu wax ala kulli muslim muslimatin jooju. ma ne sallallahu alayhi wa sallam ala kulli muslim wa muslimatin jooju. am na ci wala am na.
am na ci lan.
ci ci ci ci xadis yi.
waaw ndaxte.
ah dama ko gis ñu jënd ko fenn.
am na nag am na ci riwaayaat yi def. waaw waaw am na. seetal zaadul muslim fi mattafaqa alayhi buxaari wa muslim.
ah waaw.
zaadul muslim fi mattafaqa alayhi buxaari wa muslim. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون kooku moom dafa matale du ñëpp war a jóg jàngi waaye ñi am na faw farata la fardu kifaaya ci mbooloo mu nekk am ñu si jóg dem jàngi xam-xam diine bu ñu déglu si ñoom it war nañoo jàngal yi ci des war nañu leen a yee am na xabiir lëmm boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen xas xas ci dañoo xam te nangu ñoo xam ne ñu ne yomal xiyaam ñi xamul. duñ leen mbugal mukk te seetuñu ndax ñi xam nangu woon nañoo xamle wala déet bu ñooñu nanguwul woon a xamle ñoom la ñuy mbugal duñ mbugal jaay bi bismillah xanaa baa bu waaw waaw yooyu it am nañu foofu yow yow tuuti rek fii ñetti baat ñaar fukk juróom bismillah man fasul yetu yàlla moom dina ci wa maradin borom raag wa safarin ak dox dox boo xam ne ubbi daganalee fat na ko muy tiim ngir lan li fardin ngir farata ak wa nafil ak naafila bu fekkente ne nit ki dafa nekk ci dox amul ndox dana tiim tiim yi foofu ay masala yu bari soq ko la fi mu waxee tiim naa si ka xaay fi listi wa raajin qaddama wa zaminin munawil pat adima ki nga xam ne day tiim ci njëlbéenu waxtu mooy ki wóoru ne du am ndox ki nga xam ne day tiim ci digg waxtu nga xam ne dafay yaakaar ne dana am waaye wóoru ko ki nga xam ne day tiim ci mujj waxtu mooy ki yaakaar ne dana am ndox balay waxtu wéewéy mu yéexee ba nga xam ne mujj waxtu muxtaar ñu mu xam ne nag amul ndox du bàyyi waxtu mu wéy mu soog a tiim bu fekkente ne nag léegi mooy borom safar borom marab bi feebar moom su fekkente ne nit kii dafa feebar te bu jàppee dana yéexal feebar bi wér dana tax feebar bi yéex a wér wala dana yokku wala feebarul sax waaye wóolul na ne bu laalee ndox mi dana feebar wóolul ne bu laalee ndox mi dana feebar fekk feebar bi wala mu ngi ci feebar bi waaye bu laalee ndox mi dana tax feebar bi yéex a wér wala dana yokku ñett yëpp lu ci am dana tiim kon yete yam mu dina tiimal moom mu kàllaf moom moom du marab boroomu feebar mooy faili du mooy faili yete yam wa safarin ak dox ubbi dox boo xam ne daga def nga xam ne kon jaam buy daw te ba jaam di am wala kuy dem di fowi di seetaani football wala course wala leneen lu mu doon kooku kat dox bu ñu daganalul la lim gi nag dina tiimal farata dina tiimal sunna mooy ki nga xam ne tiim mooy farataam kooku mën na tiimal sunna waaye koo xam ne dafa mën a jàpp moom du ne rek kii du farata mën naa tiim julli ko déedéet bu fekkee nag tiimal na farata bu ci yéenee julli naafila ci laal kaamil wala jàng wala wët kaaba wala leneen lépp loo xam ne laaj na laa bu xadas xabas maanaam laaj na njàpp dana ko ci mën a mu yéene ko ci dana ci mën a wéyaale soobee la moom du maradin la waxoon wa sa wa xaadirun dégg nga ak aji teew itam saxa ko wér na dana tiimal li janaasatin ñeelu tàdd maanaam jullee néew kañ inta ay yenat dem ràññiku na wëlis ko moom rek moo ko fi mën a jullee wala moom rek moo ko fi war a jullee kenn mënu ko jullee te moom benn amul ndox wala wérul te tukkiwul mu ngi ci dëkk bi xam nga waxoon nañu sàkku naan sàkku ndox gi daan dana ko wax sax ci kanam ci ñaata ne dëkk xam ne war war na ko ci moom balay tiim mu sàkk ko fa ñaata nit dé kon kooku moom rek fi mën a jullee kii bi tàdd gi bu tiim lu ko wa fardin ak farata xayri jumaatin dul ajjuma waaye julli ajjuma jiite ajjuma di tiim kenn mënu ko waaye xanaa ki nga xam ne kii dafa fekk nekk xaadir nekk saxi waaye kan la may jibil ma lam man ki nga xam ne ki xaadir saxi la waaye kan la may jibil ma ndax yetee moom laa am la nga xam ne la may jibil ma lépp talaban la muy la muy choqaat la la mu ngi ci kanam defe naa ne dana sàkk te fekk sàkk na ko sàkk boo xam ne du tiis lu metti la waaw dana tiim alfarda lal jumata xaadirul saxix xaadirul saxix gën a tiimal farata ji mu doon judul juma wala yooyu du baamu loolu lu ngeen teg laa sunna sin di laa sunna sin
wala laa sunna sin
laa sunna sin waaw li fardin laa sunna sin wala yooyu du baamu bu amaatee ndox tax mu baamuwaat waaw waaye nag du tiimal li sunna sin nag léegi dana waxoon ne inta ay wa fardin xayri jumaatin dana ko tiimal aadalul saxe ki wér te nekkul ci tukki waaye bu tiimal sunna rek na ko bàyyi tiim rek ngir naafile da ngay xaadir bi saxe mooy li ma waxoon sànq kenn sañu ko waaye in adimoo ñoo ñëpp kat in adimoo ñoom njàkk nañu maa am ndox kaafir mu di aji doy allah di doy kon nañuy bàyyi ba àggal waaw bismillah mu ne in adimoo ndem ñàkk nañu maa am ndox kaafeen mu di aji doy aw xaafu wala ñu ragal bi istimaal yi ci jëfandikoo ndox ma ci jàpp ñu ñoo ragal marabu mooy loo xam ne am taw feebar nit ki wér na mu ngi teew ci dëkk bi mu dëkk dara jotu ko waaye kat bu tiimee ndox mi bu ko laalee bu jàppee bu laalee ndox mi rek dana feebar mu tiim naka noonu boo xam ne ndox mi mu am doyul dana wax ci kanam bu nekkee ci àll li mu am yem ci ndox mu jàpp kese mu ànd ak bàyyi ma wala jëmm joo xam ne mar na mu aw ab xel muxtaramin gàncax dégg bismillah dégg nga aw xaafu bis ci amaalihi maradam aw ziyaadatahu wala ñu ragal ci buñ ko jëfandikoo feebar na ba noppi waaye feebar bi day dolli comme ni ma ko misaale woon aw taaxara bur in wala yéexu wér nga xam ne bu jàppee kat feebar na ba noppi waaye dana tax jàpp dana tax kii bi yéex a wér tawat ji aw at am ngi nii kat aw atche muxtaramin wala maro lu ñu war maal lu ñu war maal muy borom bakkan mu ànd ak xaj am li mu ndox mi mu am ci satala gi bu ci jàppee kat maaleykum salaam. maaleykum salaam.
yéen kaa am naa leen ah lan la si la tranché.
naka. ñu.
yéen kaa am naa ah déedéet. ci ñun maay maay ci ñun maay xaw ma ne ci yéen ci yéen Abu Hanifa waaye ñun ci ñun Malik déedéet ma ne ci ñun Malik de déedéet
ci ñun Malik déedéet.
dafa ànd ak xaj wala xar wala loo xam ne rek muy dund te loolu mar na ndox mi mu am moom mi ngi ci àll bi ndox mi mu am bu ci jàppee daf ci yem képp du jàpp day tiim daf koy jox loola mu naan koy jox xaj bi mu naan mu tiim dégg nga maaxu kooku ànd nag moom aw wala mu am bi tala bi ci sàkk ndox bu dee wut ndox talafa maalin sànq alal léegi mu ngi amee fii alal yoo xam ne mënu koo yoraale di wëri ndox te bu ko fi wàccee xam na ne bu dellusee du ko fi fekk wala dana yàqu tey tiim yéen a ngi dégg de aw xuruja waxtin wala ñàkk génn waxtu léegi bu demee di wuti ndox jant baa ngi xonq bu demee bu jëlee demee di wuti ndox takk sant dana faat mu tiim mu nirali si ci tiim gi mu ne ko adama mun aawi leen naka ñàkk aji jottali ndox maa nga fee waaye lu ko koy jox teen bi dafa xóot amul baat wala fee mu nekk munu faagu dañ ko ñàkk te kenn ku koy mën tam ko ndox mi jël ko ko jox ko ko néewu fi aw aalatin de ngoog sax aalatin boobu mooy goj ak baat teen baa ngi nii jàpp waxtu wi jot na dafa war a jàpp waaye amul goj amul baax mu tiim waxal yàlla mu ndax in xaafa ndem ragal na fawaatahu waxtu waxtu faatu waxtu wi muxtaar bisti amaane ci jëfandikoom ndax booba am na ndox ba noppi waaye bu fi tàmbalee di jàpp jant bi dana dugg balay àggale